mbokki amateur yi ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel Bour Gueweul ak yéen ci bi Promédia sur Bour Gueweul TV na nama leen ko waxee woon tey nag ñoo ngi fi stade kan moo ñu fi indi ah Ndiaye production Fallou Ndiaye Ndiaye production bool bool bu mag boobu nga xamante ne que saa bu tëggee xel yëpp daal waaye tey ñu di fi assister e grand combat war a dox ci diggante kan ak kan Dame Sène bu jàmbaar wrestling ak ki nga xamante ne que moom mooy Tonnerre di combat boo xam ni grand la contre petit. tey daam seen neex neex naka dafa reprouvé dem tonnerre neex neex naka dafa reprouvé pour rester kon mbokk ñoo ànd ak yéen dund réaction dund ambiance dund combat yu neex ci Bour Gueweul ak Bour Gueweul ñu dem. mais di ko ni kan. dinaa ko ne neex naqari. neex naqari kan fii. foog mu jël ko ci bopp mbaa ci bët. boo toog. mais Mor lan la. waa dara sant yàlla rek. Mor xam nga da ngaa da waaw loolu loolu moom yàlla may suñu borom la. may yàlla suñu borom la. confiance bu bëri bi nga nekk xale rek. maanam liggéey lu metti kon maanaam su ma dikkee waruma wane yaafus. dama war a wane fulaak fayda jóge wi. mais sax xam ngeen ki ngay bëreel daanaan la. Alioune Seye wama maa ngi bëree gànnaaw combat nekk. mukk lu mu ko joxe man mool wu ndaw boo ma joxee pep damay dem boo ma joxul pep damay dem kon naxtaan. waaw. non man sama combat mu ñu ko taxaw sama combat mu ñu ko taxaw bu ñu si ba ba régaliser ko kon maanaam combat bu ñëw rek sama ginaaw ngay topp. waaw parcelle wuy see 100 pour cent parcelle bi gis naa fi ñoom Passow gis naa fi ñoom général tey défi bu rëy bi ñu. maanaam bi nga war a relever man doomu parcelle laa moo tax day day yaakaaru parcelle laa aussi eh, moo tax mais sant yàlla bu baax waa ñun ay xale ndaw lañ dafa guñ dara ñuy wuy si mais dañuy sant yàlla bu baax. mais bu xoolee ni la supporters yi wuy si. ah mais loolu yëpp dëgg la mais sant yàlla baax di ñaan yàlla suturaal mu may mu dem incha allah. jaajëf Petit Lo. jaajëf dëgg la dëgg la tey yi ñëpp a ko. xam naa dam mbër la man mbër laa xam naa ne bis moom il faut ñu neexal ko yàlla may na ko ndam maa ngi mu ñam li jikko waaw. mais Tonnerre tey li mu. Tonnerre ngi noonu vraiment il n'est pas démérité stade bi nga koy tàcc waagaan vraiment vraiment Tonnerre mention spéciale à son âge bëre plus de vingt minutes tenté le tout def le tout mention spéciale à Tonnerre pro mbër mi waaye am na combat yu ñu may proposé nan ñaan yàlla mu sotti daal. mais am nga yoo xam ñoo la gënal ñan ñooy say adversaire potentiel. man làmb laa fi nekkal. lu combat bi amateur yi bëgg rek bëgg naa la. kàr wax loolu. combat waaye Moussa Ndoye ñemewu ma de. parce que lu tax lu tax non grand la daf ñoo war a may ñu bëre. ak mais logique gu combat fi mu jugee yéen mi waroon dajeeg Mama Lamine sottiwul donc neex naqari ku war nga fekk ci kaw tamit buur marche ba gis mooy Moussa Ndoye a ah, comme gis nga ko yal na ko yàlla sottal rek. fi mu jaar ak garga. su nangu woon nii combat bi taxaw waaye comme moom li naan moo yor jëgal guyam na xool rek. mais Diam Terry dama ko tàllal ñu ko dem mu ne lu mu am yàgg ko gënal. Diam Terry champion la ndaanaan la ñëpp dañoo war a bëre di dem ci kaw moom la ma rek. làmb ji buñ bëree suñ biir léegi nii buñ demee ci kaw ñan ñoo ñooy bëre seen biir nañu na leen grand yi may chance ñoom it ñu bëre daan ñëw ci kaw ñu ne ñu bëre daan bu boobaa combat bi neex parce que tamit grand yi tamit neexul ba neexul leen dese ci làmb ji bëreetul comprendre dañ ñaan yàlla ñu àggale seen carrière ak jàmm xale yi ñëw tamit yeggale quoi loolu la ñuy def jaajëf jàmm teeru du sa yoonu du sama yoonu làmb waaw Moussa Ndoye ku la ko jox non ku ma ko jox ma jël <laughs> hey Garga yow ba nga war a bëre dafa yàgg yow kenn amul sa fay da nga yàgg si làmb yàgg si média kon war nga mën a demal sa bopp ba am ñu lay liggéeyal bu yu bëree bëri ay sit yu bëree bëri ay télévision yu bëree bëri buur sama loxol ndajoor la waagaan yëpp yow maa ngi yow samedi ak dimanche la jour doxo suñu diggante te xam ka laa yërëm sa noon <laughs> amoon keroog. keroog bi Pokola di bëree. bi mu daanoo. Ama Baldé dafa ñëw ba ci moom ne ko tappi daw sànq ndey. bi Pokola daane. Ama Baldé daa ñëw ba ci saa Touba ne aw tappi daw sànq na ni moom moo ngi mu motloo. waaye saa Touba bi mu ko joxoon bay da ko ni képp ku dëkk parcelle di bëree. te ñëw ci man wut ndimbal man saa Touba dinaa la dimbali. tey moo ngemb Petit Lo di doomi Modou saa Touba mooy sëriñ ci sëriñu Modou Lo yi la bokk saa Touba mi ku tax la bi doomu magu Modou la moom la ñu naan Petit Lo grand frère moo ko saa Touba ngi wax ak saa Touba di ko jox tegtal yi ooy saa Touba maa ko ragal saa Xombal saa Bambey waagaan arbitre bee ngi xool ñaari mbër yi Petit Lo di doom ci boru xarañ loo moo ñu wan gannaaw soq numéro 2 wala soq bu ndaw moo ñu wan karam soq nag bu yàggu la fi jug ak la ca waa Pikine xam nañu ko tey sax for naa ci weewu béy ne dafa ñëw ci làmb ji ñu téye ko arbitre ngi xool soq moo ci soq bu ndaw àcc waaye Petit Lo moom Modou Lo daanaka benn la ñu am ah. ba xooloo même style lay incarné même forme macha allah xale ba mu avenir la waaye mu ngi bëreeg booy bu taqe njool mu saf sap macha allah arbitre bi ngi xool est taq ñu lu niin wala lu rataax ci yaram yi. waaye félicitation à Fallou Ndiaye malgré taw beeg nawet bi journée bi réussir na. arbitre baa ngi wax ak ñoom di leen fàttali règlement yi arbitre bi nee na ay juge bis ka pare ngeen loobu naw rëdd na arbitre nee na pare ngeen arbitre bi la ci diggante loo ci diggante Lô Junior ndeysaan ak sox bu ndaw Lô jam <laughs> xoola xale bi comme moonu xarañ loo waaye sox bu ndaw a ngi def tekk jox ko jox ñu doxal dañuy daje eh Lô boo jëlee ko eh daje nañu daje nañu ne woon naa la Sokh dafa mën a bëriloo mot ma mënoo ko déclenché baaxul loo day gën gënal delloo si bëre bi bul forcer loo bu ndaw ki ngay bëre dafa am doole mu ngi dóor mu ngi jël ay coup mbaa kaaw du am Sokh bu ndaw ngi dóor ay coup loo bu ndaw caxabal ma mënut a nekk mënut a nekk Sokh dafa am doole loo dafa am doole teel ci bëre bi loo bu ndaw li muy bëre neexuma loo junior li muy bëre neexuma bëre neexuma waxal xale bi xale dafa am doole da ko bëgg a tal jaxabal ko mënul nekk dafa bari doole soq bu ndaw du yambar du ala fintiloo loo defal ndàkk loo junior defal ndàkk soq bu naw du yambar mot ma mënul nekk loo bul forcer li nga bëgg def jeex na ku daanu yaakaaruma ni jël am na yaakaaruma ni jël am na bërewaat la bërewaat la loolu mooy yoon waaye xale bi mën na bëre loobu ndaw mën na bëre aar bi neen la da ngeen di bërewaat stade baa ngi càccu supporters yi ay ëffalkat lañu ñu lañu bëgg Lô Junior cokaas na sax bu ndaw a ngi taxaw daje nañu eh loo bu ndaw daanu nga loo bébé daanu na waxoon naa la ko waagaan nangu naan li muy bëre doyuma parce que booy bi bëre dafa am doole oh doole waaji moo ko doole soq bu ndaw moo ko daan ko gamul ni daan. Osaas mu ngi fi. yaa oustaz yaa oustaz borom Lac Rose. waaw borom Lac Rose mu ngi États-Unis pour l'instant de. waaw waaw. mais dafa mel ni tey waa parcelle ñeenti mbër la waaw loolu la lamb léegi lamb parcelle ak Pikine dafa mel na ñoo nekk ci buntu bi pour yëkkatiwaat ko parce que nañ def lépp rek bañ ci woote violence muy parcelle muy Pikine yàlla dafa dogal ni seen bidéo moo fenkandoo il faut ñuy bëre ñoom ñaar bu njëkk ba Pikine faas la woon mais léegi. parcelle Pikine la après day toxuwaat dem beneen gox beneen gox léegi maanaam lamb affaire de gox la da ngay xool Pikine Pikine tey jii bu daje woon ak Lamsaar gox ak gox la parcelle bu daje woon ak Lamsaar gox ak gox la mais day sport boo xam ne sport bu neex la. bu mi daan gàddu Modou ci wàllu mystique ñëpp gis nañu comportement jàpp ne que Modou gëmatul mistik mën nga confirmer loolu. non loolu moom du ma ci confirmer dara ku leen wax loolu. ah waaw gars dañu gis xam nga alxuraan ñu neex ñu ne sunu lay dund léegi maanaam ak làmb ak yi mu àndal gëmatul mystique. ah mais sunna sunna sunna sax sunna sunna sax dafa am saafara boppam waaw am nañ maanaam ña gëm sunna sax am na la ñuy jëfandikoo maanaam lépp ci sunna rek mais làmb la làmb moom làmb la la rek. ñu gis keroog Ama Baldé jarbaatam daan mu daw song saa Touba saagu ko ndey ndax mu. Ah, buur sama xarit nga nag quoi mais. yo question boobu moom bëgguma ci di tontu bëgguma ci di sori parce que muy Ama Baldé muy Satou Ba ñoom ñaar ñëpp ay sénégalais lañ. est-ce que Ama noonu la waroon doxalee. waaw mais xolo foofu mooy li xol bu sedd da lay def loolu nekk. loolu dafay wane ni ko kon ba tey li mu ŋànk mooy bëre ak Modou loolu la gëm ak fi combat bi naam yàqu na mais li mu gëm moom mooy kenn la war a bëreel ci àddina mooy Modou. non non gëmul loolu Ama Baldé sportif la gëmul loolu quoi. mu bëreeg Modou Lo que mu bëreeg keneen mu bëreeg keneen lépp moom bëre bi mooy liggéeyam quoi gagne-pain am la. mais est-ce que dinañ am naa ci yaakaar nag quoi. mais dañu war a bëre. dañu war a bëre kay. lu ne ne xalaat combat boobu dafa tënk sax làmb. combat boobu dafa tënk làmb. ah non dafa tënk làmb. mais nag seen tàkkusaan fii Serigne Ndiaye jiitu ca kanam gàddu ay no Serigne. loolu mun ñaan promoteur bi rek mu yombalal ñu ko quoi mu ñëw mu waxtaan ak mbër yi mbër mi Modou faju ñu jéem a bëri sax ci décembre bi après coupe du monde bi tombeeg sax ñu jël coupe du monde bi bu ci xajee. mais nag gars yi dañ ne da ngeen a saltale ndax amaa wa gënoon a jekk de. ah dañoo saaxi saaxi lan mooy saaxi làmb amul saaxi de. sant li combat bi amul. non sampuñu dara sampuñu dara. gars yi dañuy wax rek. billaahi Modou dafa blessé. wala Modou Dior wax naan du ma ñeexum ñebbam kenn. barki Seydina Mohamed Modou ko sax di waat. waaw non yow doo fen xam naa la. ba ngay nekk lu tuuti. bëggoon na sax bëre. mais ñun ñoo ci teg suñ tànk benn loxo mënut a bëreeg Ama Baldé Ama Baldé kuy bëreek moom joxoo ko cër doo ko daan kuy bëreek moom respecté woo ko doo ko daan kuy bëreeg moom xam ne doomu mbër la doo ko daan Ama Baldé champion la kuy bëreeg moom da war a pare. dëgg naa parce que boo ko gisee rek macha allah day liggéey day entraîné te mu ngi ci lancé boo xam ne athlète nii lay mel ni mu mel la athlète di mel moo tax moom Modou bu ñu dajee runkum ba dalante. a <laughs> ndaw takkusaan bu neex. ndaw takkusaan bu neex Serigne Ndiaye wax loolu. wagaan xoolal cameraman 2 bi laay Ndiaye moo nekk ni xool ko du dara boo bëggee ñu maye ko laay Ndiaye boo bëggee ñu maye ko. mala booy bi détermination bi mu àndal mais Petit Lo yow bés boo doonee grand Lo mbaa problème du am Petit loo wagaan bés bu doonee grand Lo mbaa du am. maa ngi fii. liir naa ko bi nga fa génnee sa estimation bokk naa ñu ko njëkk a liir. ndax sunu lu mu neex neex. ah waaw sama waaw sama sama waaw. mais tey ñeenti xale ngeen ah. jàmbaar wrestling. wane boppam ci wàllu événement. seen première sortie doon lu extraordinaire. jàmbaar wrestling di produire ba tey ay jeunes. yu am talent yu am ambition mais li ma gën a marqué gën ma yéeme mooy ci yoon wi ngeen di teg seeni i ba ñu tegu ci xam ni doon mbër taxut bañ a bëgg lu baax doon mbër terewul doon nit. waaw sant yàlla rek. ndax it bon nit moom da ngay wax li mën a nekk rek tey tey ñi bëre ñëpp bokkuñu jàmbaaru suñu académie mais dañ fay ñëw ñuy préparé ndoo ñu ñëpp ensemble ndax xam nga mu neex rek nga jël ne maa moom ma nangam mais ñoom ñëpp ki école Grand Mille la nekk ki Rock Angel la nekk ki euh, saa ñambu la nekk ki école Mangal nekk euh, Dame Sène mais nag ñun dépassé nañ affaire écurie ñun parcelle bi ñu représenté ci entier ndax loolu moo lamb fa la toll mooy 100 pour cent yi ñuy wax rek promoteur bi dina si gagné 100 pour cent mbër bi dina si gagné 100 pour cent amateur bi dina dund lamb looloo ci neex quoi. papa yaa ngi waaj. wala pa jekk na. waaw ngi waaj ñànk-ñànk rek xam nga lu moom boo ko bëggee def nii rek mën ngaa fot wes dafa wes ak mbaxalu Saalum la nank nangay lekk di naan muy waaj. mais combat bu la ñor la papa ku fekkoon ni premier combat bu demee da ngay xam fi la combat bi toll. waaw mais loolu accident day am rek accident day am rek mais man combat boo gisee ñor na ma. waaye bi ñor na. boo gisee ñor ma ndax dañuy liggéey def li ñu war def yëpp ndax nit fay la xaalis pour nga bëral ko say say mbokk toog say am di jàmm say ñëpp toog da nga war def fulaak fayda après yàlla lu mu def rek nga xam ne loolu la. lan mooy secret Papa Sow ba macha allah mu garder hygiène de vie ba tey papa bi ñu xamoon 2005 Iba moom la ñu xam tey 2022 lan mooy secret wala mooy secret. <laughs> waaw sant yàlla rek sant yàlla rek nekk ci li war a nekk rek ndax àdduna moom àdduna bu la kenn naax sportif ak lépp loo doon rek teg ko ci cadre bi nga doon nit ñi rek la. bul def naka su doon lépp loo xamante ni day yàq rek moytu ko boo ko moytoo rek yàlla mën na la dimbali quoi nga def carrière bu gudd bu extraordinaire loo ci am gàllankoor loo ci am doo ci am kàddu ginnaaw. man fa laa dama bëggoon bëgg naa bëre ba bàyyi bëre du ma am ak kenn jàpp du mu am ay kàddu ñaaw man sama objectif loolu la. mais man dama amoon benn question. Ah, ah, ki la si ah, ci loxo mi ngi ci loxo yoon mais bon amul suivi quoi mais comme que sunu ginnaaw nekk moom amul problème li may wax rek mooy comme léegi làmb dafa neexaat mi ngi waat nan defaraat jikko yi gën a yaru ndax ñëpp mën nañoo réew ku ne mën ngaa réew. mais boo ñëwee ci mbooloo yaakaar naa ne képp ki ñuy gën a ràññee mooy képp caractère ki gën a yaru ki a dal wala moom la ñuy gën a ràññee. Gris Bordeaux Balla Gaye la set la a ah, combat bu neex. Gris ah c'est coéquipier la face. tey ku ne xam ne il a l'obligation de daan Balla Gaye. Balla Gaye fi mu jugee ak li koy xaar neex neex naka dafa daan donc muy combat bu complexe ci ñaare ci ñaare athlètes. combat bu métti la ñuy dem ñoom ñaar ñëpp muy Balla Gaye muy Gris Bordeaux rawatina Balla Gaye aussi ndax Balla Gaye dafa tegalee quatre combats yu mu war a bëre génn benn bi. am ci safaan yeneen ni war a ñëwaat xamoo luy xew ëllëg waaw yu métti ah yu nekk ci kanamam obstacle yu métti yu nekk ci kanamam quoi bu dee bëgg dëgg da nga bëgg a dégg mooy combat yi métti la mais nag ñoom ñaar bëri woon nañu ñemante woon nañu ku ne xam nga sa morom. ngir yan potentialité la am pour daan Balla Gaye non ngir mën na bëree mën na xeex am na doole da ko teg ci yoon rek waaw. ni phase mobilisé woo ci ginnaawam jàpp nga ne que mën na nekk un plus. pour pour maanaam pour mener Gris ah yaakaar naa ne ah war nañu jël lamb ji en main aussi ndax Balla Gaye combat bi dina ko jaral de xam nga li mën di xew ko jaral. daf ko jaral. non Balla Gaye nit jom la am na défi la seetaan naa seen sitting yeeg lépp mais daal combat bu neex la waaw combat bu neex la. jërëjëf papa jërëjëf buur. Nokia lañ lool. Bécaye 2 moo doon wan gannaaw ñu ngi léewtoo à distance Nokia Bégaye 2 léewtoo guñu ci dara yi ful dañuy tappale ak ñu naqasaale ak Ndiaye production Fallou Ndiaye Nokia Bégaye 2 bëre leen boo xoolee tey takkul benn gàllaaj dafa mel ni bagaar bi la privilégié neexee mag mu ne moo koy rek aca ɓe eh, kay de no kuya mel na ko yaa est-ce que mu ngi amal tey léegi ay iPhone la di wax de ay XC max ay 11 pro 12 ba 13 aca dafa guñu fulla daje guñu bëree guñu xeexa guñu bekkaani ni mu siggee bëgguma ko arbi baa ngi leen naan dalante leen bëre leen Nokia Bécaye Bécaye taxawul Bécaye taxawul lu tax jox leen ma li ma bëgg gis man buur Nokia dafa mel ni xeex bi la bëgg a privilégié daf ko bëgg a joué ci ay déplacement ba dajeeg moom indi ko en erreur waaye mel ni Nokia mu ngi sóor loolu Becaye 2 Nokia doxal leen ma xool gisagunu dara arbitre waxal ak ñi dañuy tappale arbitre bi dina wax ak ñoom mbiri naq saale la dañuy jël avertissement waaw waaw waxal ak ñoom ci fulla ah, arbitre sifflé waat na Bécaye moo nu wan ginnaaw Nokia moo nu wan kanam lefe naa Nokia ci moom la Papa Boy mu jaam ndam loolu yàgg na lu yaam bëri leen ma xool. lu tax xaarante bi. qui ne risquera rien n'aura rien. te qui ne risque rien n'aura ah ay xale la ñëw nañu dëggal seen bopp ku yàlla may nam ñu xam ne yàlla yow yàlla may nam lu ne la ñuy wax barki Rasulaay ma la jàppee barki ah. Serigne Saliou Mbacke ma la jàppee jàppante baa ngi nii ah, waaye wuu waay Mamadi waaye nanu bëre waay ah waaw mais nanu bëre Mamadi ah donc yaa cokkaas na gàkku laal la suuf daa bëgg xaax bekaay ma naan gàkku ay man lu ma daal gàkku de xale mën a bëre moom itam lambi calcul la kenn ñoom ñaar bëggul daanu lambi calcul la Bécaye 2 ni Nokia yaa taxawee moo ko tëj moo tax mun da déclenché xeex pied gauche bi baaxul ci moom pied contre pied la Nokia jàng na ko la ñuy daje daje xeex ba Bécaye delloo si na bëre bi da doon caas tànk bi sottiwul Nokia taxawaayam neex na ma Nokia taxawaayam wóor na Nokia Gakou 2 astafurlah ay man lu ma dal ah waay Nokia Bécaye 2 Bécaye door na cabaan tànk eh, eh, door mu daan doom Bécaye kuy dal na kuy bu yëngoo tuuti rek Bécaye am bunt bu yëngoo eh Bécaye dee laa ilaaha illallaah laa taxawal Bécaye taxawal Bécaye taxawal Bécaye. taxawal mbaa du génn mbaa du génn ni ko nu yaa ni ko topp day génn day génn day génn jàpp nañ la takk na la takk na la takk na la nu yaa takk na la day woote mu ngi composé day woote laay lay la laa laay lay la lii lan la lii la la dafa appal nu yaa mi benn mee wootewul wootewul lii ma si sant yàlla bu baax rek euh, julli jënanti bi gërëm suñu ñaari waajur sant lu làmb yëpp rek làmb ko yokkut yaa wàññi yokk nga dañu am fierté wax ci macha allah suñu démb nga demoon Fatick ah, taw bi indi ay jilti jalte ba finalement dañu mujj reporté li nga xam ne moom mooy mbapat waaw mais sant yàlla rek xam nga yàlla moom lu mu def da ngay nangu bu baaxee sant yàlla su bonee mu sant yàlla mais lépp suñ borom la kooku ak cant lañ koy def mais nag di gërëm monsieur le ministre Matar Ba. sa xarit. sama xarit. sa xarit man am nañ fa ba taay sa xarit. sama xarit sama mag sama papa sama kilif sama lépp la. mu jàpp ci bis bi ba macha allah lépp lu ko war ci bis bi def na ko. kon bu ñu amee sañ-sañu renvoyé ko toog xaar ba déwén ñu tëgg ko moom la. ñun kii mooy Mor. coow li ci ginnaaw làmb yëpp. moor la te kenn du ko dégg mais Mor loo wax ci loo wax ci bii pour Média nag buur nag ñëw nañ ci jëfama ah, pour gën a am liberte gën a mën a jariñ làmb waaw buur yow loo nekk lu nekk rek dañ siy sawar waaw di la si ñaanal suñu borom def ko ay télévision yu mag a mag parce que yow buur loo am mérité nga ko sa xol yaatu nga yéene nga ñëpp jàmm koo gis da nga koy waaw loolu yombul si jamono ji moo tax da ñaanal li nga jiite nii suñu borom kàttanal la si dem ba mu nekk télévision bu mag ñu naan buur géwël ko moom loolu boobaa sagu làmb lay nekk parce que yow ñun si ñun nga bokk moo tax tey jii suñu gisee leen siy kontaan bu baax a baax daal. jàmbaar fu ngeen tollu waa jàmbaar production mën nañ ne actuellement ñu ngi si ay réunion yu bëri waa ñu ngi waajal le 6 novembre. xam nga bis bu mag la te bis bu mag nag day laaj wàccaay day laaj ay waxtaan yu bëri mën nañ ne avant tabaski ba léegi ñu ngi waxtaan. ci programme bi te tamit am na ay affiches yoo xam ne ñu ngi commencé taxaw yu war a dugg le 6 novembre Siteu Papa Sow. yéen a ngi ci en partenariat avec la RTS ba tey. waaw ñu ngi si ñu ngi si euh, mën nañ ne semaine bi war na am benn rencontre ak RTS pour finaliser euh, lu bari daal te incha xam naa ne bientôt yu bari dinañ. Eh, jàmba ñu ngi waaj conférence de presse bu mag Siteu toog Papa Sow toog ñu lancé programme bi jëm le 6. presse yëpp ànd nañ cee yéen dama koy wax. du axlu làmb du 100 pour cent làmb du nangam Sénégal dafa am une presse le rôle d'une presse c'est d'informer et de relater site Papa du événement bu concerné juróomi site wala fukki site dafa événement moom dafa concerné àddina donc toute la presse est invitée ñiy def làmb ak ñi def làmb mën na ñëw jàpp ci événement bi tawi ko mbir mi mën a jëm ci kanam. waaw pour incha allah ni nga wax loolu rek dinañ ko yaatal ku nekk sentir sa bopp parce que site Papa mën na ne. du senegal rek ñoo ko soxla adduna ñoo ñooy xaar affiche boobu parce que dañu bëri woon ñoom ñaar fii jotul yegg tey jii mën na ne combat bi asu pique bu dëpp la faw mu leer si kalamu amateur yi faw mu leer si kalamu sénégalais yi faw mu leer si kalamu adduna bi mooy wan ne presse bi yëpp incha allah dinañ si ànd ak ñoom liggéey sa ñoom duñ tëjal suñ porte kenn tey a ngi noonu kookoy moor la jeune yi Tonnerre a ngi resté sur les appuis taxaw xaar ndax am seen Tonnerre dara amagul daa bëgg cokkaas waaye defagul lu daam gisaguma nga appliqué lu mën a daan bala nga jëloo say responsabilité da nga respecté Tonnerre de trop Tonnerre li muy def c'est son dafa war a xaar te xaar wax na dëgg daje nañu daje nañu xanaa mel ni cong la war a doon daam seen Tonnerre Tonnerre nga jëm a daa ma koy daa ma koy arbitre puusal Tonnerre bañ arbitre puusal Tonnerre ma ngi forcé maa lóor mu daan du am maa lóor mu daan du am Tonnerre résisté mu ngi dóor daam fayuwul daa ma ngi fayu daa ma ngi fayu daa ma ngi dóor loolu mooy yoon accéléré ba rëy waaye Tonnerre fi mu jàpp moo gën a baax. daam jàppul daa bëgg Tonnerre bàyyi daam maa duñ la fàq daam Tonnerre ni mu def fàq la ma jox bu wetoo bu la fàqee da dem waan da ngeen tebee gën a wóor Tonnerre gi dóor ci biir bi Tonnerre gi dóor aca eh eh eh, eh daam enchaînement daam dama loo boo ko defee mbër da ngay mu ngaa saaloo bërëm daam Modou Diouf wax la dëgg mu ngaa saaloo bërëm daam seen Tonnerre ñu ngi bëri lu neex waaye buntu feeñagul ci ñaari mbër yi ndeysaan mbër day xarañ daam bërëb bi tëju ci moom moo jeex na rëpp na ñoom ñaar jugaat nañu actionnement door mu daanu door mu daanu tonel trëf na daam dafa waroon actionné actionné wul bi tonel trëfee daam dafa waroon actionné xeex bi xeex bi tonel génn na tonel génn na dafa jël ko teg juróom arbitre woote waat na waaye daam seen li mu maye nanguwuma warul woon mën a yegg si fii ak tonel ndax nag fi may ni Tonnerre jàppaan na confiance mooy soufflé na juróomi minute nooy waat reprendre à tous ses esprits d' daam seen d' accord uma te man buur béguma jar béguma bégo mu bu toll di bëre mag mu toll nii may ko li nga am da nga koy saisir soo ko defulee gàcce mën na laa dal te daam seen tey dafa ragal daanu ci bés bi lool mbër nag qui ne risque aura rien. aura rien. Jara Prod moo wax loolu. Dame day xaar. gis nga sigil na ko dalul. nee naa la na. noppalu na Jara. Tonnerre. soufflé donc day gën a liir li muy def su daam seen dëggalul boppam jël ay responsabilité am mën naa am lu ko naqari. mais daam dafa mel ni xeex moo gën a xeex bi gën a arrangé mais dëggalul ci xeex bu jàpp. bi dëgguwu ci. parce que nee naa la day mbër mu ragal gàcce. te tonnerre aussi li muy may daam pour mu dugg ci gardam dafa bari daal. tonnerre lii la mës a bëre tonnerre amul garde mën na xeex. Ah. mais garde bi leeru leerul normal. déedéet leerul. na moytu coup yi nag kon. waaw waaye. na daam bañ a jël coup Tonnerre. waaw bu ko jëlee en bu ko jëlee lambam yàqu. maa la daam xeex bi dëggalu ci boppam. Mhm. saxu ci daal. saxu ci waaw. te pungal mu toll Tonnerre ëppoo ko doole. Mhm. gis nga gis nga li ma wax jàppante bi. bu na feeñ jara. neewul doole itam. non neewul doole. dafa am hygiène de ku bëri ñoom Malick super jamono wax dëgg yàlla ñoom Malick mitrailleuse ah. ah ñoom Ama Baldé AC début ah euh, ñoom Yékini Junior ñoom Tidiane Faye ah jàppal doo cuune am na hygiène de vie Tonnerre Damsen gis nga daa moo indi fi bés waaye bés yi war a foon mën a yegg si. waaw. premier cinq minutes rek waroon na jeex. fa sax. bu to bu làmb ji jeexee dina daam da koy lijjanti. da koy lijjanti loolu la soxla làmb ji jeex. ñu jox ko victoire amee benn rek waaye d'accord ma ci lool du neex. xale la dafa am yeneen combat ci kanam. Mm-hmm. warul bëre lii. quatre ka avertissement muy am benn muy daan na ko dese waaw ndax bu ko jéem a ba na ko daan ci ngor mooy bi xaar ñu ci woon lii man xaaruma ko ci woon ñëpp dañu am déception parce que ñu seen xam ne daam du mbër muy jël responsabilité ah moo tax nag Tonnerre lii mu ko bëre lii mu bëre daf lay wóor ni dañ ko ko conseillé waaw parce que xale bi moo soxla ndam mooy jëli moom Tonnerre palmarès am riche na mm-hmm. ci ay ndam la toog donc lu asaaloo bëreem xale bi moo soxla. da koy xaarloo loolu mooy dëgg. mooy yor de ay magu Pikine rek ëmb ah. waaw ñoo ko ëmb indi ko loolu mooy dëgg. lii day jéem a gérer combat bi waaye bu ma sañoon su bëggee amaat beneen combat bu faar na daan tonnerre avec la manière. loolu mooy dëgg jara loolu mooy làmp bu daanee sax noonu du safe waaw bu ko daanee ci nii ay avertissement ay supporteurs am du ñu bëgg. kenn du daam dafa bokk ci espoir yi wane war a mën a wane boppam. gis nga xeex ba xeex ba gis nga daam fixul pour xeex parce que bëggul jël coup. waaw ñemewu ko waaw ñemewu rek mooy erreur ci carrière am waaw. weer benn sànni tàccoo ko lim yor lépp da ko ciy xëpp Tonnerre Dame Sène lam waxul dëgg jaral waa noonu la mbër ju loolu day màgg daal garab ca kaw lay fekkante loolu mooy làmb ah ca Tonnerre Dame Sène gis nga buur Tonnerre lu muy tànte bis bu réussir Dame dina daanu jël bu rëy waaw lu ko bett parce que Tonnerre dafa bëgg a jaar ci pokotaan bi. waa da ko bëgg a faqat. Ah. te bu moo gën a diis. day boof ci kawam. mbaar ko ba daam dootul jóg. ay li muy tànte bu mais gauche bi te jàppul dafa cate. Hmm. boo xoolee gis nga. gis nga ah, caxabal ba gis nga. gis nga gis nga gis nga. gis nga vraiment tonel gor la. maa la ko der la. bis bu réussir bi mooy ñett yoon mu koy tenté muy échec. maanaam nag loolu lay bëre. mais bis bu réussir nga gis jël bu rëy. musibaam daam daam bokkatul. daam fu mu toll nii xoola da koy lijjanti rek comme li nga wa da koy lijjanti. Ah. <laughs> maa ngi ci xeex bi la ko mënoon amee. <laughs> da koy buur. booy bëreeg mag mu tol nii ngeen yegg si ba fii. Ah. fit moo koy yeggal. ak ñi mel naaj ci maa la ko wax. loolu daanu ko. loolu daanu ko dafa diis. loolu dafa diis. te daam gisuma ci combat mel na ni daawul contact ak ay ñoom góor a punkal yooyu. moom moom moom daam seen gisuma loolu. ah daam seen daanu tonnerre. da ko def na réussiroon naa. réussiroon na. réussiroon na ba ma yuuxu. waaye Tonnerre n'a pas démérité. oh. quoi qu'il dise seen poulain sant ngeen ko li ngeen koy sant mais man dama jàpp ne ci biir bëre bi daam waroon na ko mën a jeexal bu yàgg. waaw xam nga daam action bi da koy dégg tout le te loolu mbëree action da ngay continuer pré bi mu ko fàqate ba wër ko loolu foofu jëlal woon bu yàgg mais dafa taxaw xaaraat te loolu erreur la si mbër loolu baaxul loolu ànduma si est-ce que li mu bëree tey ak xale yi mu bëgg a fekk ca kaw lii ma gis mu koy bëree jëm na foofu non non non dañuy yokkaat liggéey bi dañuy yokkaat liggéey bi gis naa erreur bi dañ koy liggéeyaat incha allah si carton suñu borom dañ koy rectifier si carton suñu borom jërëjëf coach jërëjëf merci beaucoup Mor <laughs> na ma buur tey waa ji foog ma ne ko kang loola ma wax de ma ne ko kang <laughs> moor kang-kang Alioune Seye Junior door na njaq la dellu si waat na ndeysaan moor kang-kang ngi ci géew bi ay waay yat ma tey Fatma Dia laa xalaat. Fatma Dia ndeysaan euh, buur yaram bi dafa sumeeku dafa jeex tàkk si saas ndeysaan. xoola Mor Kankang fàttali na Mama Baldé keroog ba muy dajeeg Baye Pël. ndeysaan ndeysaan Kang Kang taxaw na. macha allah am na doole. xam nga lu mooy fàttali forme guy gi. waaw guy gi waaw waaw coopération bi la. guy gi lii la yoroon. man ndeysaan xam nga rek. c'est normal. c'est normal mais moo tax booy bi di ko gisee nii. di ko bàyyi xel di ko bàyyi xel am na doole. mais ASC junior mbër ci turub carab la ko Moustapha Gueye genre boobu la. ku doot ci bëri. voilà am na nu muy demee mën na la juumloo. waaw l'essentiel na kankang xam ni ki muy bëreel du cuune. du cuune merci beaucoup. na xam ne na ko jox cëram. <laughs> na ko jox cëram. Yatma Fall Sene News. wax na dëgg mais Mamadi forme Mor Kankan waaye form moor Kankan form bu baax la yor Bour Gueweul parce que forme athlète la yor li yat ma wax rek ne bu ko ah. koo xool sa xel dem ci guy gi ndeysaan wallaay gi wax na dëgg début guy gi la may jox ak début ki nga xamante ne mooy sàlloo ah. jàpp ñoom katida ba ci mbay juuf forme boobu la Mor Kankan yor moom la indi tey promo boo xamante ni lu combat bi yàgg rek daf koy gën di am daf koy gën di. arrangé xale bu am public la lu combat bi gën di yàgg daf koy gën di arrangé ndaxte li mu liggéey la buur. kookoy Mamadou Diouf immédiat ndeysaan di un très grand xam li muy wax xam li muy def yàgg ci làmb lool di ko dundal ba fekkoog yan ma faal Sénégal Ndar Ndar bi ndeysaan waaw yan maana waa Loodo. waaye yar maa waa Pikine. sa noor mooy looro sa sa looro mi ngi fa rek di la xaar. walaay léegi sama looro yar. <laughs> soo moom looro léegi. ay ñoom dogal a ganaar. <laughs> waaw. walaay ndeysaan. ay dogal a kip. walaay ay ville. ville. loolu sànce ba. Sindoone sànce ba. Goxumaaj. Goxumaaj. nga wàcc Soor. ñëw HLM Cité Lamine Gueye. fa laa dëkk. Oh. li ci Charles de Gaulle. nga ne dem Ndiol Fène. Oh. sama ko ñu turandoo. Oh. nga ne nii. kàkkaang la ay waay caméraman yi seere nañu waxkat yëpp a ngi wax ma fekkoog Mamadou Diouf sama càmmoñ yaat ma faal sama ndijoor wallaay Mamadou xanaa li nga sant Diouf rek moo ma jaaxal waaye amul solo bu ñu paree ma peel reer mbaxalu taatu mbote arbitre sifflé na wala Aliou Seye 2 mu ngi kabar mu ngi jal Aliou Seye junior mu ngi kabar mu ngi jal Mor Kankang taxaw na ñaan na raay ci boppam Aliou Seye dagg na fas gi ci ay tànkam Mor Kankang ñaan na supporter am jug leen ay Kankang ay Kankang nee na ma buur waa ji foog ma ne ko Kang Mor Kankang Aliou Seye Junior Ndiaye production yaay pungal yaay ndaanaan maa ngi seen Pape Abdou Fall sa kaw Mor Kankang Aliou Seye Junior Mor taxaw na Aliou Seye toujours concentré roona taxaw ci chaise bi di ko bàyyi xel Alou Seye Junior Mor Kankan looy am. olof Ndiaye dafa wax. dañ ñaari ñaari ndam mooy dugu benn mooy génn ma ne non non je ñaari mbër ñooy dugg mais benn ndam mooy génn. ndam mooy génn loolu mooy olof bi. loolu mooy olof bi yaat ma faala wax loolu. bu ñuy dalante muy jaax. <coughs> maanaam cong doon. naanum congu lay doon maanaam congu lay doon laa ma ci lu yàgg bu jàppante mu jeex waaye Mor Kang mu ngi teg bare bi ci yoon man jàpp moo woon que lii sax indi Mamadi waaye li muy xaar yoon la mooy round d'observation xam sa adversaire lan la indi Mor Kang Kang borom Kang. Alioune Seye Junior nañu bare nañu bëree mu jeex kuy njëkk dem ak boo demee loo may fekk Mor Kankang laaw na dem na Mor Kankang dem na Mor Kankang dem na waaye Alioune Seye li muy bëre baax na waaw moom lay bëree ak moom tey dal xeex ba eh, xeex ba xeex ba Mor Kang Kang mu ngi xeex ba xeex ba xeex ba Mor Kang Kang xeex ba xeex ba Alioune Seye rek def teg tànk ba jël na tànk ba xar jëppet lu mu bëgg Alioune rasuna rasuna bañ na. Aliou Seye Junior bañ na Mor Kaka nga ngi ronu Mor li ngay def wóor na Mor ngi forcé mu ngi seere mu ngi seere Mor Kaka ngi seere Aliou Seye Junior rasu na rasu bi baax na eh Mor maa doo daan daan na ko Mor Kankang nee na ko Kang nee na ko Kang nee na ko Kang nee na ko Kang nee na dafa am doole neen dafa tole doole Aliou Seye lu muy contesté nee na ko kàng Aliou Seye lu gis ngeen mbokk yi lii la ñu indiloon tey ci journée bi nga xamante ne que Ndiaye production moo ko tëgg ñu fii ay combat yu neex gis ngeen combat boobu doxoon ci diggante ki nga xam ne moom may Bécaye 2 ak Nokia yàlla may Bécaye 2 vraiment avec la manière waaye gis ngeen it combat bi nga xam ne moom moo dox ci diggante ki nga xam ne moom mooy Tonnerre ak Dame Sène Dame Sène moom it di xale boo xam ni dëgg-dëgg waagaan na ko lamb bàyyi xel waaye diggante Mor Kankang ak ki nga xam moom mooy Aliou Sèye Junior Mor Kankang ne woon na ma sàq buur neen dinaa ko ne kang te nee na ko kan kon lii lañ leen indiloon ak Bour Gueweul sur bii Promédia di leen jox dig daje ba dimanche prochain ci arène nationale.